waaye bés boo ko feralee mu fer bakkan itam noonu la sa doom nekk xaleel muy génn ci biti environnement bu tilim ay virus di ko topp muy takk ripp ak i bàkkaar mu commencé di ceeñ doxin di ceeñ xelaatin di ceeñ waxin yow baay wala yow yaay nga war ko jubbanti ci xam gi nga xam sa doom benn nga di ko jubbantee ci di ko jay wala nga di ko jubbante ci di ko xub wala léegoo léeg su dóor nécessaire nga dóor ko te fekkit baay ji na mat baay yaay ji na mat yaay mooy su fekkee da ngay discipline waruloo xa bàyyi jéego dem ca ba ca kawam te exhaustuloo jéego bi ci suuf waaw suy am na nag fu muy àgg sañatuloo defati lenn nag sañuloo ko gaañ sañuloo ko def dara loo xam ne ak lor lay doon ci moom waaye nag as ndóor soo xam ne mën na ko jubbanti comme que xale bi yar la eh, yaa eh, ragal wala xaste yu demee noonu sax ñemeetuloo koo def soo ne sa doom ji bët sa bët bi suufan ci su ko neexee yow ñu dugal la ñu tëj la moom ñu génnee ko muy dem doxi lu ko neex su ko defee nag ah li nga leb la rek lañ lay fay su ko defee dañuy dem a dem ci jamono ba kenn duhatul bàyyi kenn duhatul yaay kenn dootul doom ku nekk da ngay ne compalong ak sa bopp di dem ak sa bopp suñ demee ba nga màgget ñu yu dugal la ca home ya nga xam ne say doom ñoo la waroon a toppatoo ñu indil la ay nit yoo xam ne ana man ana yow la ñu di la toppatoo parce que nit fu mu mënti nekk rek forcé nit nit socialiste la doom aadama bu ne socialiste la mënoo dund lu dul nit ñi su ko defee nga ànd ak ki la gën a jegeñ ke ëpp ci yow yërmande amul benn sikk ne moo gën ànd ak keneen parce que keneen koo mënti ànd ak dafa am interest bu leen boole mooy dafay fayeeku weer dong waaye jubluwut ci yow jaamu yàlla loolu moo tax yarul lislaam bi nga xam ne moom la lislaam am loolu dafa baax ci ñoñ lislaam ndax nit ki suy toppatoo yaayam wala muy toppatoo papaam bi nga xam ne mag la moom séntuwu ci dara bëggut ci butuut daf koy def ngir yàlla pour yàlla fay ko loola du ci yëg coono du ci am naqar du ci am dara te yaayam walla papaam dana dëkk fu baax dana set danañ ko toppatoo euh, te kenn du yëg ànd ak sutura waaw waaye su fekkee ne da ut koo xam ne moom moo koy toppatoo ca home ba koo xam ne xamut ana man ana yow su demee fu lu nekk lay nettali eh su ma màggat mi tey nii su ma màggat mi nangam su ma màggat mi di nettali mboolem secret yim am nga di ko nettali waaw te dara waral lu ko ludut dañoo wàcc yoon wi nga xam ne moom la ñu lislaam digal te mooy mag ñi nanu yërëm xale yi xale yi nanu topp mag ñi suñu demee ba nga xam ne mag ñi màgget nañu na leen xale yi yërëm waqul rabbi irhamhuma kama rabbayaani sagira niñ la doon toppatooyee ba nga nekkee xaleel nañ la daan ñaanalee ba nga nekkee xaleel yow itam nga delloo leen tuuti ci bor boobu nga xam ne moom lañ la lebaloon kon mun nañu jàng ci diggante maam Ismail ak diggante ak papaam di maam Ibrahim ñun mun nañ ci jàng ci suñ société tey e naka la doom ak baay naka la ñu war a toppante waaw su ko defee kon ñu gis fa tabaarakallaahu dogu gi nga xam ne ñoom ñaar ñëpp am nañu ko ñu seet itam njàmbaar gi nga xam ne doom ji am na ko ak topp gu mat sëkk gi mu topp papaam jéemut ko questionné waaw euh, euh, ndax sax gént gi dëgg la wala du dëgg walla lu tax muy def lii wala nangamati na kenn kenn du ko du ko questionné yàlla daal nee na naa la rey mu ne ko defal li la sa borom digal man dinaa ko muñ waaw waaw su ko defee kon mbokk yi loolu lu doy waar la fa lamma aslama wa lil jabini ba nga xamee ni ñoom ñaar ñépp nag sorenda nañu seen bopp ci dogalab yàlla ah yàlla nag xam ne dëgg dëgg dëgg eh, bi bi saabiqi ilmihi tabaan yàlla eh, fii nag la xam ne sama ñaari jaam yii kat li ma leen sant dogu nañu ci te danañ ko def sunu borom subhanahu wa daldi di e, dal di woo ko wa naadaynaahu wa naadaynaahu an yaa Ibrahim qad saddaqta ruya inna kadalika najisi almuxsinin Ibrahim mu naa mu ne ko gis naa ne la nga géntoon dëgg-dëgg dogu nga pour def ko waaye doo ko def te du tere danaa la fay jëf ji nga yéene woon ba nga xamee ne ndeysaan tëral na doomam ja nar ko rey jël paaka bi rombale ko paaka bi dal di lam ñenn ñi ne paaka bi dafa dafa nooy ñenn ñi ne sax maam Ismaayil daf ko ne ko waaw pappa lu tax dogut mu ne ko dafa dafa dafa paaka bi lee mun a dafa lam mu ne ko mu ne ko jam ko waaw jamal su ko defee ndax nga mën a def li nga xam ne moom la la sa borom subhanahu wa taala sant loolu nag amatul maam Ibrahim ca nag dal di paas test bi nga xam ne suñ borom subhanahu wa teg na ko moo tax yàlla ne in haada la huwa al balaaul ku bugg seet li ñuy tuddee nattu li ñuy tuddee mbugal waaw yàlla mbugal la ci yoonu nattu la dara gënut a bii nii <coughs> nga xam ne moom la defoon diggante maam Ibrahim ak ki nga xam ne doomam la di maam Ismail ci yàlla nag ci la waxee ne wa fadaynaahu bi dibhin azim ci la yàlla ebal nag jibril alayhi salaam mu jël xar ca àjjana indil ko maam Ibrahima salaam mu daldi ko rendik loolu moom musal eh, sunu maam Ismail ci rendi googu yonent bi <clears throat> wax na ne su fekkoon ne eh, eh, dogal boobu demoon na su fekkoon ne rendi nañu maam Ismail loolu sunna suy continuer la ba saa yu Tabaski jotee kenn ku ci ne dana rey doomam loolu moo tax nag yàlla ne wa tarakna alayhi fi l axirin salaamun ala ibrahim inna kadalika waaw ne lii nag ñu def ko muy sunna soo xam ne daf fiy des ba àddina tukki waaw salaamun ala ibrahim su ko defee kon mbokk yi loolu moom la ñuy dëgmal si mu mel ni ñun li ñu ci war mooy képp koo xam ne jullit nga gor nga te jaam amatul muqiim nga mooy kudul ku aji makka ta xaadir nga mooy attan nga ko kon war nga rey xar sunna la ci képp koo xam ne jullit la te mën na ko ta nekkul màkka ka nekk ca màkka moom du tabaski benn muy def ta tamato walla muy def qiraan mu jënd hadyu waaw waaye du tudd tabaski waaye ki nekk fii moom dafay dafay rey tabaski tabaski boobu nag soo ñëwee ci fiq rawatina kër gi nga xam ne ci lañu bokk di imaamu Malik moom li ko gënal mooy xar xar moo ñu gënal bu góor bi soo ko amul bu jigéen bëy moo ci tegu bu góor bi soo ko amul bu jigéen bi ci tegu mooy nag bi ci tegu mooy gëlëm ndax moom dafa gis ne e, tabaski e, neexaayu yàpp lañuy topp waaye topp ñu bëri xaayu yàpp waaye soo demee ci yeneen ngir yi am na ñu wax ne déedéet bi gën a rëy ngay tàmbalee gëlem moo ñu gënal nag moo ci tegu xar moo ci tegu béy moo ci tegu ndax bëri haayu yàpp lañuy xool waaw kon loolu mooy sunna si su ko defee booy jënd sa xar mi it ah, nga bàyyi ci xel waaw ndax eh, kuy jox yàlla dara danga koy jox lu mat waaw loolu moo tax alquranul karim wax ne lan yanaala allaha luxumuha wala dimaauha walakin yanaaluhu taqwa minkum nee na yàlla ne soxlawul yàpp wi soxlawul deret ji soxlawul der bi dara la ci soxlawul moom lim soxla rek taqwa minkum mooy ba ngeen di rey ngeen def ko ci sellal ngeen jublu ci jaamu yàlla sellal sa digganteeg yàlla loolu rek la ci suñ borom subhanahu wa soxla te jëf yépp noonu la jëf lu mu bare bare bare yàlla du ca jël lu dul lang ko ca jox su ko defee kon eh, ñu tànn lu baax ndax nag kuy jël dara di ko jox yàlla dangay tànn lu baax moo tax ñu ne la xar mi ngay rendi bu mu am benn sikk moo xam mu laago wala mu pat wala nopp ba dog wala béjjén ba damm wala gen ba njàdde wala muy muy soox wala mu làpp lool wala mu feebar lii lépp bu laal waaw demal jënd xar moo xam ne Eh, xar mu baax na waaw waaw waaw su ko defee nit ki su fekkee dafay joxe toujours dangay joxe ci li gën waaw da joxe ci li gën waaye doo joxe ci li nga xam ne bëgguloo ko waaw loolu moo tax suñ borom subhanahu wa moo tax ci fiq ñu sant la ne façon yi xar mi moom ngay jënd bokk yi ñu di leen fàttali nag benn sew-sew fii ci sunu aada tobaski mu ngi bokk ci jaamu yàlla